asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi. sëñ Babacar ñu ngi lay delloo nuyu di la ziar bu baax. ñu ngi di nuyu mbooleem mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan seen télévision asalaam yi ak ñi nga xam ne ñoo koy déglu ci rajo bi. di leen ñaanal jàmm di sakku ñaan ci ñoom. di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadinul Mountakha. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko. Mm-hmm. ba lépp lum mu yéenee liggéeyal lislaam mhm. mu defee ko ni kawe njortam mhm. te ànd kook mbooleem jullit yëpp mhm. di leen ziyaara bu baax a baax a baax di nuyu di ziyaara kilifa kër gi di sëñ Fallou Galasi la di ko xam ne ku ne xam na ab yëngoom ak taxawaayam ci yoonu murit kon ñu ngi koy ñaanal lu am solo lii nga xam ne taxawal na ko sunu borom dolli ko ci tawféex Euh, ndax tawféex moo moo tax mu taxaw mhm. waaye yal na ko yàlla dooli tawféex ba mu àgg fépp fu ñu yaatalee lu baax mhm. ci barkeb sëriñ bi di am yéene ànd ak yow jotaay bi mhm. di ñaan yàlla mu defar na ko jotaay boo xam ne lépp njëriñ lay doon te ñëpp mën cee jëriñu incha allah. incha allah macha allah dégg ngeen nuyoo boobu ni mu àndee ki teggin dégg ngeen nuyoo boobu ni mu àndee ki worma muy Serigne Modou Thiaré comme li ñu leen ko waxee sànq nekkatul koo xam ne dañ koy présenté ci réew mi kon mbokk yi yaakaar nañ ni jotaay bii nga xam ne moom la ñuy séq moom dina doon jotaay boo xamante ni jotaay buy jur ay njariñ la ci fàttali rek émission bii ni moom mi ngi ko waroon a séq ki nga xam ne moom mooy Serigne Saliou Neex Jamono waaye dafa mujjee am empêchement ci les derniers moments looloo waral teewut fii waaye ñoom ñaar sax ñoo ko waroon a séq sëriñ bi li ñu bëgg a njëkk a xam rek mooy suñu ne woon kan mooy sëriñ Modou Thiaré lan nga ñuy wax. jërëjëf ci laaj bi euh, am na solo Modou Thiaré de benn ndongo daara la boo xam ne euh, taalibe sëriñ Touba la yàlla dogal nag mu nekk ci dëkk bi sell bii di Touba euh, jàngee fi alquran fii ci jànnatul mahwa daara ji ñuy wax. daaray Cheikh Makhtar Diouf di doom ci doomi président Abdou Diouf daara ji nekk fii ci table hôpital yàlla dogal fa lañ jànge alquran bi ñu noppee itam euh, li nga xam ne mooy li ci war a topp ci ki noppi ci alquran donte alquran kenn du ci noppi waaye waxin la euh, muy jàng xam-xam xam-xam nag suñ ko waxee euh, dañ cee jiital li nga xam ne moom la jullit bi war a jiital ci ginnaaw bu mu jàngee alxuraan ba noppi te mooy wut ab yóbbal ci lu mel ni euh, tawxiid fiq ak tasawuf yàlla dogal ci diir bi nga xamante ne ñi ngi koy jàng bàyyiwuñu rek suñu bopp ndax euh, arab day faral di wax ne xam-xam boo gis kat xam gi moo gën ñàkk koo xam mmh. donte ne am na ci xeet xam-xam yoo xam ne amuñu njëriñ waaye boo ko xamee dana tax nga xam naka nga koy wattandikoo ba mën koo ràññee bu baax a baax ak li am njëriñ ci biir loolu suñ boroom dimbalinu ñuy gëstu ci li nga xam ne mooy xam-xamul di ci liggéeyal tamit ay nit yoo xam ne ay kilifa yoo xam ne suñ boroom dimbali na leen ci wàllum lasraar ñu di ñu dimbale ñoom tam ci seen xam-xam ci sababu li ñuy def jëflante ak ñoom ci di leen ci jàppale ci seenub liggéey ba yàlla dogal euh, ñu am ci loo xam ne mat na ab yóbbal ndax xëy na lasraar bii ñu yëngu suñu borom moo dogal mu am kilifa gu baax gu nekk ci dëkk bi goo xam ne am na liggéey boo xam ne féete woo doon naa ko ko defal féetewoo woo ko maag sama beneen morom boo xam ne ñoo ko doon dimbali ci lu mel noonu ci loo xam ne xëy na lu am solo la waaye nag lootal na ci boppam ndax jotam ak liggéeyam ak njàngale alxuraan bi mu nekk sun borom dogal nag ñu dem ba ci jëmmi jamono mu ne ma dinaa la jox loo xam ne mën nga cee jariñe waaye nag mën nga cee jëriñu ah, ma ne ko alhamdulilahi rabbil alamin loolu moom dimbal lay doon saafaram ci téere bu am solo boobu nga xam ne kilifa googu moo ma ko jox. Mhm. muy kilifa goo xam ne kilifa gu ragal yàlla la tey borom xam-xam ci fànn yu baree baree bari. même su ci yow sax dañ koy dégg lu baree baree bari rawatina fii ci Touba. Mhm. ñu bëgg a xam rek lan mooy lan mooy lasaraar tey su ma la bëggoon a xam lan mooy lasaraar lan nga may wax mhm. fii bu fekkee wax nañu lasaraar. Mhm. diw de sayxul asraar la. wala diw day yëngu ci wàllum lasaraar. Euh, lasaraar baat bi mu ngi jóge ci siru. maanaam siru bi firi secret. Euh, lasaraar nag mooy jamono bi mooy pluriel bi. su ko defee buñ nee diwkat day yëngu ci wàllum lasraar diwkat day yëngu ci wàllum ci wàllum ñaan loolu liñ ciy jublu sayxul asraar boo ko déggee mooy koo xam ne kat danay yëngu ci wàllum ci wàllum ñaan euh, loolu mooy li nga xam ne mënees na ko ci leeral ndax sirru li muy firi mooy secret waaye jamono bi nag mooy asraar moo tax boo déggee sëñ bi wax ne ilaatawaal yi fii yaquudullaahu asraara laa ilaha illa allaahu asraar lu muy tekk mooy ay ay secret ay siru ay mbóot ay mbir yoo xamante ne daal xëy na yu nëbbu la mm-hmm. yoo xam ne euh, làq na mm-hmm. ay njëriñ yoo xamante ni ku nekk di nga ci mën a jëriñu mm-hmm. njëriñ yooyu nag nga xam ne dafa làqu nekkul lu fes ba ñëpp mën cee jot nëbb bu mu nëbbu moo tax ñu di ko woowee asraar ak ak siru moo la am dafa nëbbu waaye nag ki nga xam ne gis nga ne yittewoo na ko. Mhm. su boobaa mën nga cee joxe loo mën nga koo jox loo xam ne dana ci mën a jëriñu. dana mhm. ci mën a jëriñu bu baax a baax. Mhm. Euh, ñu dégg la ci say biir wax nga ni euh, mbir la moo xam ni kilifa la ko jox. Mhm. Euh, te ñuy faral di wax ni xam-xam ñaar rek la. ba nga xam ne dañ koy tarbiyewu nga xam ne dem jàngi ko sonn ci ngir am ko bi nga xamante nii peut-être dañ la koy sol wala peut-être lu lu luñ luñ lay defal la bokkut ak li nga xam ni da koy jàng sëriñ bi ban ban ban la ci ban la ci am li nga wax ni kilifa gee la ko jox nan la la ko joxee da ko sol wala daf la jox loo war a jàng. Mhm, alhamdulilah muy laaj bu am solo xam nga euh, jëmmi kilifa ci boppam liggéeyal ko dafa am solo ndax nit mën naa nekk kilifa euh, di ko liggéeyal di ko liggéeyal di ko liggéeyal ba xëy bis ne la làq nga sama ngërëm. muy kilifa gu yàlla gërëm nag. gis nga baatu gërëm naa la boobu kilifa gi di la wax. Mhm. Euh, yàlla mën na la ci dimbali ci làq googu nga làq ngërëmam mm-hmm. ndax kilifa kilifa gu yàlla gërëm mm-hmm. bu la gërëmee yàlla moo la gërëm mm-hmm. te ku làq ngërëmal sun borom tabaaraka wa taala da ngay sa borom tabaaraka wa taala ndax ngërëmal yàlla mooy may bi gën a màgg di may bi gën a rëy ci mboolem may yi nga xam ne jullit bi dana ko yittewoo ndax euh, ngërëmul yàlla moo gën a rëy aljanna moo ko gën a màgg moo tax nag boo liggéeyalee nituk yàlla koo xam ne dem na ci yow mm-hmm. mu ne la dinaa la jox loo xam ne di nga ci mën a jëriñu waaye di ci mën a jëriñu mm-hmm. jox ma téere boo xam ne bu ma ko xoolee lépp mm-hmm. euh, alquran la mu nekk téere boo xam ne téere bu yaatu la téere bi lu ñuy jaay la wala moom moo ko bindal boppam téere bu ñuy jaay téere boobu boo ko doon wër mën ngaa mën nga ko wër ba sonn doo ko gis mën nga ko wër fu ne waaye doo ko gis moom moo ko liggéeyal boppam. bu ko neexoon nag mu koy wecc ci kii comme ni ko ñu bëri defee. Mhm. su boobaa sax loolu dara du ci nekk waaye la tax mu denc ko moo ko xam. Mhm. waaye ku laa biir la koo xam ne. Mhm. Euh, bi ma waxee loolu yàlla dogal ba ma jot ko. suñ borom dogal na ni alhamdulilahi rabbil alamin ndax nit dana la woo ne la man de diw moo nit woo la ne la man de mas nga maa defal dara. ñaar yooyu nag day loo xam ne. Euh, boo ko déggee kii la ne diw moom a booleeg yow diw moomu amaana su masta jaar ak yow fenn mën naa am mu xam ku mas a jaar ak yow fenn mbaa mu xam ci yow dara ki ñëw ci yow ne la man de mas nga maa defal am lu mu yitti wawaat li muy tekk mooy la fa ngeen njëkkoon a jaar amoon na ca tawféex mhm. moo tax wax naa la léegi ne la niiwaan na nga gis nit ñëw diis la dara nga xool ko ci téere boobu te doo ko gis du lu ñuy wecceeku nag du lu ñuy def lenn waaye nag dama jàpp ne alquranul karim comme ni suñ borom tabaraka wa laa wax ne huwa shifa min kulli daa maa faratna fil kitaab min sayin waaye ànd ak loolu lépp tamit nga jële ko ci kilifa goo xam ne ci alquranul karim la nekk di jàngale alquran ci dëkk bi boole ko di dimbale jaamu yàlla yi ci seeni soxla nit di joge ba bitim réew di ko seetsi mu di la dimbale kooku bu dem noonu ànd ak yow mi mu ko jox boo góorgóorloo tuuti rek faw suñu borom tabaaraka wa taala def la ci defal tawfiix mhm, macha allah kon mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg ànd ak ñun ci émission bi mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 88 628 53 53 88 628 53 53 ci fàttali rek ngir yéen ñi nga xam ne yéen ay doog a jàpp Assalaamy TV wala yéen ñi nga xam ne yéen ay doog a jàpp Assalaamy FM ki ñu dalaloon tey di Serigne Modou Thiaré di ab tradipraticien dëkk fii ci Touba di yëngu ci wàllum ñaan di yëngu ci wàllum asrar Serigne bi est-ce que bi ngay wax léegi nii du du du du waa Touba yëpp ko am wala du du du du du du goney Touba yëpp ko am ndax euh, maa ngi gis benn benn influenceur benn tiktoker. Mhm. bu ñuy wax njaayloo mu doon sax euh, takkine ñi nga xam ni ñoom ñooy photographie tuubaay mhm. di wax ni photographe Touba yi ñoo ëpp ñu ñu war a photo. Mhm. waaye man dama bëggaat moom sax mu defaat beneen vidéo. wax ci ñaankatu Touba yi ndax man dem naa ba yaakaar ni sax ñaankatu Touba yi ñoo ëpp ñu ñu war a ñaanal. est-ce que kon du boobu ngay wax euh, xale yi yëpp dañ ko far am. jërëjëf euh, téere boobu de xam naa ni ki ko am ki ko yor ki ko bind te moom ko euh, ràññikuwul lool ci euh, comme comme ni jamono ji tëddee nga xam ne xam nga day am ñoo xam ne suñ boroom da leen di dimbale ñu nekk ay jàmbaar lool di dimbale jàmm yàlla yi te bëggunoo fés duñu bëgg a fésal seen bopp Euh, donte ne am na fu leen nit ñi mën a xamee fu leen nit ñi mën a suivre fu leen nit ñi a kii ndax tamit làqatuwul waaye mën ngaa bañ a xam ne kii yor na lii moo tax téere la boo xam ne boo ko doon wër fii ci Touba euh, néewuma doo ko gis waaye nag ku la ko mën a woon ku nekk day jàpp naa ne kooku kilifa lay doon kilifa goo xam ne euh, boo ko nattee ci ay at dana ko motee nga nattee ko ci wàllu comportement mu matee ko mm-hmm. ndax nekkul loo xam ne dafa ràññiku ci moom ba ku dem ci moom nekkoo nangam ak nangam ak nangam ak nangam mm-hmm. moom tam nekkul ne kenn ku nekk la koy jox mm-hmm. ndax bu doon loolu la kon mën na koo móolu def ko ay kii di ko wecceeku di ci am loo xam ne euh, lu mu ciy jëlee la kon nekk na loo xamante ne li lu raara raar la waaye nag lépp rek euh, alxuraan la boo xamante ne nii képp koo xamante ne nii suñ borom dogal na ba ñu jaar ceeg yow foofu euh, da ngay gis ndimbalu suñu borom ak tawfiix suñu borom tabaaraka wa la Mm-hmm. kon yéen yéen clients yi nga xam ne yéenay sonal sëriñ bi di ko woo fii mu nekk nii mën ngeen woote ci 88 628 53 53 parce que sànq ba tey ñu ngi gis ni téléphone baa ngi a ngir daal di mën a wax ak sëriñ bi directement euh, sëriñ bi ba tey fi ma nekkoon fa laay ñëwaat de mm-hmm. ba tey maa ngi ci ci ci ñaankat yi ndax yow yaay sax borom kan lool laa lay njëkk a laaj yow yaay borom lan alhamdulilahi rabbil alamin euh, laaj nga laaj boo xam ne laaj bu am solo la mm-hmm. ndax da ngay faral di dégg ci sëriñ su bari man la diw borom nangam. waaw loolu moom loolu moom jot na ma lool borom nangam diw borom diw waaw borom nangam ak nangam ak nangam. xëy na sax boo tuddee lenn joxe benn exemple mën nañ sax jàpp ni diw moomee ngay waxal te fekk da ngay leeral. moo tax mën nañ cee foofu ndax nit ñi danañ xam liñ jubloo wax. foofu luñ ciy leeral rek euh, man la diw borom nangam ak nangam loolu jaru ko. Hmm. ndax li nga yor. bu dee luy jëriñe la lu am njëriñ luy jëriñe jarul man la diw nangam ak nangam ak nangam ndax boo defalee kenn lu baax mu gis kooku bu dellu siwaatul ci yow tamit dana am xam ku la yittewoo mu boole kook yow. mais sëñ bi looloo tax nag gaa yi di siiw de man la borom diw gi man la borom sump gi man la borom nangam ji loolu moo tax gaa yi di siiw de. waa xam nga siw gi moom euh, dëgg la am na solo ci génn fànn gi. Mm-hmm. waaye li nga xam ne mooy li ci ëpp solo mooy fexe ba képp ku jëflanteeg yow mu sawar ci dellu siwaat euh, man la diw diw diw da ciy dégg sax ñoo xam ne seeni tur ya boo ko settantale ba settantal ko day niru bokkaale suñu borom tabaaraka wa taala ah, dafay niru bokkaale yàlla mhm. te nag koo xam ne dañ ne da ngay ñaan ci yàlla mhm. kuy ñaan ci yàlla suñu borom war naa fexe ba lépp lu muy jëfandikoo wala mu di ko tuddoo wala mu di ko liggéeyee wala muy luy génn ci moom mu sori lool loo xam ne day day day day wuute ak ak xam-xam ndax misaal ki nga xam ne dafa ñëw tuddee boppam borom nangam boroom nangam borom nangam borom xalima gi mm-hmm. ah bëgguma woon dugg ci yooyu mais day borom xal wi am borom diw gi am na. Euh, borom léppay baax am na. borom kurus gi am na. borom kurus euh, te te te souvent ñi ngay gis ñu koy def ñëpp daanaka. Mm-hmm. mooy ñi nga xamante ni souvent ci yeneen liggéey lañ nekkoon. Mm-hmm. da ngay gis benn koo xam ni carreleur la woon dem ba karo bi doxatul. Mm-hmm. wala nga gis koo xam dawalkatu charrette la woon dem ba charrette bi doxatul wala chauffeur la woon dem ba nangam bi doxatul. mu ne mut kurusam ak siyaadaam. tegub kaamilam ne man la borom kaamil bi. wala man la borom siyaada gi. jërëjëf muy lu am solo euh, na. comme comme ni nga ko waxee euh, lu am la waaye nag man xëy na damay jàpp ne képp koo xam ne yaa ngi ci yëngu xëy na lu mu néew néew néew am na lu la yàlla dénk loo xam ne lu wër lay doon xam ne yow xamal nga sa bopp ne lii lu wër la donte li nga wax lu lu am la ndax euh, gis naa koo xam ne dafa nekkoon ak ñaankat xam dafa nekkoon ak sëriñ Euh, di ko liggéeyal mm-hmm. liggéey boo xam ne jotewul ak la sëriñ ba di yëngu mm-hmm. xam nga léeg-léeg mën ngaa nekk ak sëriñ mm-hmm. di ko liggéeyal liggéey boo xam ne da nga koy dimbali ci la liggéey yow mosoo ci am mosoo ci am genre yu mel noonu mosoo ci am kenn <laughs> ndax yéen sëriñ lu ci bëree bari genre kaa mel noonu da ngeen koy am mosoo ci am benn waaw waaw moom de xam naa kiimaan la waaye nag euh, day faral di am am na koo xam ne euh, misaal tey mën ngaa nekk ak sëriñ. Mhm. di ko liggéeyal ci fànn ga muy yëngu maanaam di ko dimbale ci mbind yi. Mhm. di ko xooleel yenn yi di ko doxal yenn service yi wala di wax ak client yi. Mhm. mën ngaa dem ba mu am loo amee ci moom. kooku bu yàlla dogalee ba ngeen tàqali ko. même bu fekkente ne tàqale kooku dafa am nu mu demee. te fekk xëy na am na yoo jotoon ne gëstu ci moom. mën ngaa for as tuut. waaye nag loolu du doy. waaye tam da gis koo xam ne man gis naa koo xam ne. nekkoon na ak kilifa. di ko liggéeyal liggéey boo xamante ne maanaam jotewul ak ñaan nga daal maanaam lu mel ni yow yow sëriñ nga. man ma ñëw. gardien wala chauffeur wala di nekk sa chauffeur di la dawalal sa oto. Mhm. di la dawalal di la dawalal di la dawalal ba yàlla dogal xëy na ngeen tàqali ko. Mhm. man mi nga xam ne sa chauffeur laa woon waaye liggéey bi sama njàng sax demewul noonu. Mhm. ma jékki-jékki rek xëy na gis naa yow nit ñi ni ñuy ñëwee ci yow. gis naa liggéey bi macha allah mi ngi dox yaa ngi góorgóorlu. mu wut siyaada ak kurus waaw mu wut sama siyaada di dugg ci TikTok bi di def samay vidéo gis naa koo xam te ne lu mel noonu la def. Mhm. ba nijaayam lenq nijaayam. Mhm. moom dañoo jékki-jékki gis nijaayam ci TikTok bi <laughs> mu def vidéo ne diw mii di wax ne moom sëriñ la man maay nijaayam. dara xamu ko <laughs> képp ku ko jox sa xaalis dañ ko jëflante yéen ñaar di nga ñàkk sa xaalis te mhm. nga xool ne kooku lam wax dëgg la ndax xëy na nekk ak nit rek di ko dawalal otoom dem ba yàgg xëy na mu mën a dawalal boppam wala daal ngeen tàqali ko mhm. nga jékki-jékki rek daal di euh, jékki ne da ngay ñaan mhm. ba ba noppi nag mu def ay vidéo yoo xam ne day mel ni da dalay dalay dalay xaw a kii parce su fekkee man damaa nekk sa euh, chauffeur. Mm-hmm. di la dawalal ba xëy nga am nga mën mënal sa bopp di dawal sa bopp. Mm-hmm. ma ne damay ñaani. Mm-hmm. waaye vidéo yi may def yëpp maa ngi koy jëmale ci bu fekkee da ngay dawalal nit. dem ba yàgg mu dàq la. booy dawalal nit bëgg bëgg du la dàq. secret bi ak secret bi ak ah. secret bi ngay <laughs> genre yu mel bu baax <laughs> di joxe ay secret yow xamante ne nii day tax boo nekkee nit du la dàq di nga tax nga xam ne mu ngoog nga xam ne def lay xaw a mel ni ku lay gaarawaale ci ci ca la nga xam ne moom lay def <laughs> noonu la amee tamit ci yeneen i fànn yoo xamante ne nii comme ni nga ko waxee bëri na lool waaye nag damaa yaakaar ne sénégalais yi ak sénégalaises yi ñoo war a yeewu daal ci fànn googu mhm. ndaxte nit ci boppam dañu faral di wax ne al mar'atu taxta kalaamihi takallamu tu'rafu dañ ne doomu aadama nit kat dafa mel ni dafa làqatu ci ron làmmiñam waaye wax leen ñu xam leen maanaam li wolof di wax naan wax feeñ ku wax feeñ am na koo xam ne soo déggee na muy waxee ak na muy jëfee ak na mu comporté woo boo demee ci moom ne ko lii ak lii ak lii ak lii maakaar ne Euh, yow yaa sànni sa xaalis wala nga aw foo xamante ni waruloo faa aw. waaye nag dafa mel ni fi ñu toll nii Sénégal yi daa mel ni loolu lañ gën a bëgg daa mel ni Sénégal ñoom lañ gën a jox bopp. Mm-hmm. mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy génn ci TikTok bi. Mm-hmm. naan man la Serigne diw borom nangam maa def lii def laa. Mm-hmm. wala sax ñuy def ay prédiction ci mbir yi nga xam ni day am. maanaam wàllum làmb am wala dara am. ñu génn wax ci loo xamante ni suñ paree ñoom sax la ñu yóbbuwaat vaar. mais dafa mel ni Sénégal yi ñooñu lañ gën a jox bopp. waaw loolu lu am la boo xoolee fi mu ne ñu ëpp wala boog ñu bari xëy na xam nga yow nit ki bu fekkee te ne dafa nekk koo xamante ne xëy na des naa yeewu dëgg dëgg dëgg dëgg wala boog mu mu maanaam ni mu waree a yëngoo dëgg dëgg dëgg ci lu am njëriñ dëgg dëgg dëgg nekku ci. su boobaa ki nga xam ne dafay yëngu ci wàllu caaxaan. pour mu convaincre ko day yomb. li ma jubla wax mooy ñooñu ngay wax doo gis benn boroom xam-xam. mu woo leen di ñaanlu ci ñoom wala nga gis benn nit koo xamante nii ku am personnalité la koo xamante nii intelligence la. mu woo leen di jëflanteek ñoom. waaye ñu ëpp ci ñi koy to ñi koy ñiy jëflante moom ñooy ñi nga xam ne dañoo am temps. ci di leen suivre ndax xorom gi ñu xorom ak yu mel noonu. waaye loolu daal bëri na ci. waaye nekk na loo xam ne. nit ñi nga xam ay nga leen jàppee ñooñu nga xoromu gi ñu xorom. Ah, déedéet déedéet. <laughs> ay comédien nga leen jàppee waaye daal moom bëri na ci daal loo xamante ni lu mot bàyyi xel la ndax nit ki nga xam ne day yëngu ci yoonu yàlla surtout ci loo xam ne lépp jaamu yàlla la. Mm-hmm. waroo nekk koo xamante ne nii dangay ngay da ngay reeloo nit ñi wala nga nekk koo xamante ne nii. Mm-hmm. dara day bëgg a xew nga ne diw dara dana xew làmb ji kii mooy daan. ah yi kii mooy gagné nangam loolu nekkul loo xamante ne maanaam rôle lu ab sëriñ la te da ngay gis dangay gis bu lu mel ni làmb soo amee nga gis koo xam ne dañ koy invité mu ne combat bi diw mooy daan wala nii lay demee wala nii lay demee gis nga loolu nit ñi ñi ngi koy def waaye lu ko gën a garaaw amul xam nga lu tax mm-hmm. euh, gisoo ne jaamu yàlla yi nga xam ne suñ borom da leen a dimbale ba jox leen xaybu yàlla def leen a dimbale ba ñu mën a xam ci li war a ñëw est-ce que yow mën nga maa tuddal lu mat juróomi nit euh, yoo xam ne mën nga maa xamal ne ma yàlla may na leen xaybu maanaam ci jamono ji ñu toll mu wóor la ne ñii nii am nañ ko. xam nga est loolu que loolu amatina sëñ bi wala am na bu baax waaye xam nga lu ñuy wattandiku. Mm-hmm. suñu borom bu la xamalee mhm. xamalu la ngir ngay wax lu ñëwagul mhm. suñu borom xamalu la ngir foo toll di xam ne ne lii dana am lii dana am ñu bare bare bari ñu ngi koy def amaana la ñuy sukkandiku ba di ko wax muy xam-xam boo xam ne xam-xam bu am njëriñ la xam-xam dafa am ñaari fànn mhm. am na xam bu nit ki di jëfandikoo ngir xam lu xewagul te muy xam waaye baaxul am na xam-xam bu nit mën a jëfandikoo ba xam li ñëwagul te jaare ko ci yoon bu baax waaye ñaari yooyu yëpp lenn lu ci nekk lu ci nit ki xam du loo xam ne dafa war daf ko war a fésal ndax loolu bu amee lépp lu mel noonu lu ñëwati dañ naan nañ xool it seen diw seen diw lu mu ci wax seen diw lañ ci wax nañ déglu seen diw seen diw moom day dem ba yaakaar ne dafa téye programme suñu borom bi wala yaasu billah day dem ba yaakaar ne moom ci boppam mu am lu muy incarné ci moom te fekk du lenn lu dul as njaamus suñ borom tabaaraka wa taala hmm. moo tax ñi nga xam ne suñ borom da leen di xamal xëy bu dëgg dëgg dëgg dëgg hmm. mënoo koo xam ci ñoom ndax danoo xam coobari suñ borom hmm. koo xam ne wax na la bu yàgg ne yafalu maa yurid yafalu maa yasa faalu li maa yurid léegi suñ borom moom nga xam ne lu ko neex dogal te kenn amul sañ-sañu ne ko lii nga def wala waxoo ma woon lii wala wanoo ma woon li wala nangam ak nangam nangam boo xoolee ba yàlla woon la ne lii dana am suba nga génne ci télévision yi ñëpp jàkkaarloog yow nga ne sunu borom wan na ma ne lii dana am suba ci jamono yooyu nga koy wax dëgg la mhm. mais sunu borom ci kàttanam ci coobareem ci dogalam mën naa changé te kenn amul sañ-sañu ne ko li nga waxoon du nangam ak nangam ak nangam su boobaa kan moo ciy des mhm. yow la ñuy wax ni nga waxoon du dëgg mhm. te mënte amaana la nga waxoon dëgg la waaye dafa am loo xam ne cërub suñ borom la ñu war ko koo bàyyee war ko koo jox moo tax ñaare yu mel noonu ñu yeewu dëgg-dëgg laa wax nag ñu yeewu dëgg-dëgg. Hmm. Euh, duñ ko def. waaw hmm. ah, donte ne sax yàlla da leen di xamal yu mel noonu waaye dañuy xam ne dara jaru ko. Hmm. ndax mbir yi ci suñu borom la aju. mën na laa woon dara dana am nga wax mu soppi ko. te da dem ba suñu borom mën na laa mën na laa jé jéppi sax. loolu nekk na loo xam ne kon lu mat a bàyyi xel la waaye nag Sénégal mooy réew moo xam ne. ki ñu gën a mën a dem ci moom. ki ñu gën a mën a déglu ki ñu gën a mën a topp. muy ki leen di wax yooyu jàpp nañ ne tey jii soo ma laajoon li nar a xew ëllëg loo xam ne ñu bari dañ koy laaj lu xaar lu mel ni combat wala nangam su ma la nee xaw ma ko jàpp nañ ne amul xam-xam moo tax lu ci ëpp Sénégalais yi ci seen jëmmi bopp euh, ñoo koy yóbboo ñenn ñi waaye nag nit ki ci boppam moo war a xool digganteem ak yàllam mm-hmm. xool la muy liggéey li ci jaar yoon ak li nga xamante ne nii waru ci maanaam waru ko waru koo wax settantal gi ak sellal gi moo xaw a jafe néew mën ak amul waaye dafa xaw a jafe lool moo waral léeg-léeg ngay faral di gis yooyu sëñ bi su ma dégloo li nga wax ma comparé ko ak li kilifa gi waxoon ni itlabul xilm walaw bi Chine day mel ni xam-xam dafa nekk loo xamante ni du lu yomb nga jot ci kon lan moo waral ndax tuubaa nga dëkk Touba laa dëkk ku ne xam na ne loolu phénomène la fi ku jug ne ne ne léegi sëriñ la ku jug ne maaraal day ñaan ak ni nga xam ni noonu nga waxee nii xam-xam nduruma jafe-jafe-jafe lan moo waral nit ñi ku jug rek ne léegi moom am na xam-xam waa xam nga ñaan moom daa nekk loo xam ne euh, lu am solo la ab jullit ci jullit mm-hmm. ndax ñaan mooy ngànnaayul jullit mm-hmm. te boo demee ci alquran sunu boroom da nga fa fekk muy wax yasalunaka yu bari yoo xam ne saa yuy wax yonent bi alayhi salaatu salaam naan ko yasaluunaka day mel ni moom ci jëmmam moo koy wutal tontu wum tontu nit ñi moom yonent moom suñu borom moo koy wutal yonent bi lu mel ni yas yasaluunaka ani ruux sama jaam ñi buñ ma la buñ la laajee ci wàllug ruux lam ca teg mooy xul xuli ruux min amri rabbi maanaam xul yi rek ñoo ma gën a intéressé yasaluunaka anzil xarnayni qul la ca suñ borom teg ne leen nangam ak nangam tontu leen. Mhm. est-ce que yaa comprendre. Mhm. Euh, lu mel ni yasalunaka ani saati ayyaana mursaha qul la ca teg qul innama ilmuha inda rabbi mhm. naka noonu tam yasalunaka anil yataama xul islaahun xayrun lahum bëri na yasalunaka maza yunfiqun xul ma anfaxtum yoo xam ne sunu borom mooy wutal yonent bi alayhi salaam ab réponse ci question ne ko na nga leen répondre nangam ak nangam ak nangam waaye nag bu ñu ñëwee ci wàllu ñaan ba muy wax yonent bi alayhi salaam naan ko sama jaam ñi buñ ma la laajee suñ borom nekk fa di ko jox réponse naan ko xul wala nangam ak nangam ak nangam mais dafa mel ni ku taxawal boppam taxaw temm ngir fas yéenee jox ki nga xam ne moo koy laaj waa wa iza sa'alaka ibadi anni waxu leen xul fa innahu xarib loolu waxu ko xam nga wala xul fa inna allaha xarib yàlla suñ borom daf mel ni ku taxawal boppam ni fa inni xaribun ujibu daawata daai iza daani moo tax ñaan nekk loo xamante nii lu am solo la te mënta ñàkk ci jullit bi segem nag xam nañ ne ñaan amul lu mu amut lu mu mënta euh, saafara ci ndimbalul suñ borom tax na ba képp koo xamante ni nii euh, yaa ngi ci yëngu faw day am ñoo xam ne dañu lay yaakaare koo xam ne am nga ci xam-xam bu wër a wër wër boo xam ne mën nga cee dimbale nit ñi ci seeni soxla moo tax ñaare koo gis muy yëngu ci wàllu ñaan ak nu mu mën a mel faw mu am ñoo xam ne dañuy dem ci moom ngir jëflante ak moom amaana nag mu nekk ku xam wala ku xamul waaye comme ni nga ko waxee léegi gis nga ne sax ñi nga xam ne dañ leen di woowee ay ay ay comi ay ñooñu gis nga ne ñoom li ñuy recevoir ci ay mbooloo mhm. néewaa na sax ñi nga xam ne dañ caa nekk dëgg dëgg dëgg dëgg tey sellal mhm. ñu mën koo recevoir mhm. am na sax ñoo xamante ni ay genre courtier lañ. Mm-hmm. maanaam mm-hmm. mm-hmm. ñooy nekk devant les écrans di wax ni a ñaan. di wax ni ñoo mën a seet. boo leen joxee dara tey la. wala nga jox leen dara pour ñu la ñoom dañuy retourné waat demaat ci ki nga wax ni ñoom ñoo ñoo seet genre courtier daal la ñuy liggéey mës nga ci am kaa wala mësoo ci am kaa. waaw loolu loolu day faral di am euh, di nga gis sax koo xam ne day yëngu ci wàllum euh, xaar wala yu mel noonu waaye mën naa am seen seen seen gistu moo fa dul àggagum wala doo dañ ko dul jàngagum mm-hmm. waaye misaal tey ma ne la man kat dama yëngu ci wàllum listixaar mm-hmm. Babacar jaa ñëw ci man ne ma dafa bëgg a listixaarlu mm-hmm. ma laaj ko information yi may soxla ci moom mu jox ma ko euh, ma xool koo xam ne wóor na ma ne mën na ko ma wax ko ko jox ko ko am lu ma teg ci loxoom day fekk ma am lu ma la laaj mm-hmm. ba ma joxee dara ma jël ci dara jox kooka mm-hmm. kooka mooy ki nga xam ne moo koy def euh, leeral ma man tam ma ñëw informé waat la loolu lépp am na ci mm-hmm. am na ci tamit comme ni nga ko waxee ñoo xam ne euh, mas naa cee am euh, koo xam ne xëy na am na lu ma daan liggéeyal saa di muy faral di yóbbul ay yóbbante mm-hmm. boo amee yóbbante boo xam ne daa war a dem ci yeneen raison yi ndax bu dee lu jëm Dakar moom daanaka mën nga koo jo aloo Dakar yi mm-hmm. mais bu dee lu jëm ci yeneen raison yi nga xam ne ci garage bi nga koy yóbbu mm-hmm. koo xam ne dama koy jox yóbbante ne ko yóbbu ma ko barab sàngam li ma xamal ne moom day def loolu sax mooy dama cee am ñaari kaar toog ba benn client woo ma ne ma li ma joxoon jot naa ko Euh, ma di ko leeral nu mu koy utiliser we far mu ne ma keneen ki keneen ki nga joxoon yóbbante bi sax moom tam am na lu mu may defal am na lu may defal ma ne ko kan mu ne ma ki nga joxoon yóbbante bi mu yóbbu ko ma ne ko abon ah mu ne ma waaw parce que def maa ne ma li la sëriñ bi di jox nii nangam la nangam la waaye man nag mën naa laa liggéeyal leneen loo xam ne moo ko gën a efficace. mu waxtaan ak kooka bu déggoo ci yoon ni gi ma ko yoon ni ngir mu yóbbul ma yóbbante bi. xam nga yow su ma la joxee sama bi yóbbante ne la yóbbul ma ko garage yóbbante bi mi ngi jëm Kaolack. ki moom yóbbante bi damay bindaale numéro yow nag ngay dem ci garage ba àgg woo woo ka ki moom yóbbante bi. ne ko maa ngi lay dugalal yóbbante bi waaye yor naa fi loo xamante ne nii moo gën a efficace lii. waaye nag su ma la koy liggéeyal. dama am fu ma koy suul dafa am fu ma koy yóbbu du loo xam ne dama la ko yónnee nga jot ko kon xam nga mm-hmm. caaxaan foofu la tàmbalee wax dëgg yàlla yow nit ki mu ngi la jox loo xam ne danga ko war a yóbbu ba nit ki jot ko mm-hmm. ma yow nga nga di ko woo ne ko mën naa laa defal lu gën a efficace ni waaye doo ci jot su ma la ko mm-hmm. defalee fane barab sàngam laa ko yóbbu barab sàngam laa ko yóbbu barab sàngam laa ko yóbbu nga xam ne yooyu ay mbir la yoo xam ne day xew ci diggante mbir yooyu mooy waral nag nga jékki-jékki rek gis kenn mu fëll ne day yëngu ci wàllum la lasaraar mhm. te amaana sax am njàngam mën naa bañ a sori lool lool lool lool lool mhm. loolu lépp da ci am waaye daal nit ñi daal dañoo war a yeewu yaakaar naa mhm. foofu sax bëggoon naa faa ñëw euh, maanaam ñaan googu noonu ban ban jàng la la la laaj dëgg dëgg dëgg ngir nit ñi mën a xàmmee ni su ñu gisee giseetee nit mu mu mu ne dafa mën ñaan wala gisee giseetee nit mu ne dafa mën seet te jàngam eggul foofu ñu mën a xam ni carrément kii mënul wala laajul jàng jàng bu egg fenn euh, ñaan moom ci sama xalaat ak ci sama gis-gis bu gàtt laajul euh, yenn jàng yi nga xam ne dañ naan nit ki faw mu nangam ak nangam laaj na jàng tam ci benn côté ndax nit ki faw mu xam ràññee li nga xam ne diine may na ko ko ak li ko sariya mayul loolu ama am solo la ci ki nga xam ne moo yëngu ci wàllum lasaraar mm. ba nga xam ne du nekk ab masamba boo xam ne képp ku ñëw ci moom ne ko dafa am ndaw su may bëgg a takk mu defal ko ko yow nit daa ñëw ci yow rek ne man daa am ndaw su may bëgg a takk mu bëgg nga noobal ma suñu diggante nga defal ko noob xamoo ndax li mu la wax dëgg la am déet waa léegi moom bu loree bu loree ndaw soosu yow ngànnaay li kan moo ko jox du yow loolu xam nga dañ ciy am responsabilité yooyu lii tax nit ki mën koo xam parce que ku ne xam na ne baaxul mm-hmm. waaye nag la muy jur ëllëg xam gi faw nga jàng pour nga xam ko faw nga jàng xam gi ngay xam ne lii lii lay jër ëllëg nag loolu mooy tax ba yow nga mën a wattandiku wattandiku yu mel noonu ba nga xam ne mhm. di nga xam bu baax a baax li nga war a liggéeyal nit ki ak li nga war a liggéeyal nit ki mhm. ci biir loolu mu mel ni buñ la lasaraar ndax laaj na am njàng mhm. moo nekkoon laaj bi xam nga yow sëñ Babacar wala ma natt ko ci sama bopp. mën naa nekk koo xamante ne nii xëy na sama njàng soriwul lool lool lool lool. di ko ci man rek. <laughs> li am solo rek mooy sellal gis nga boo sellalee. te yor loo xamante ni nii wóor na la ni du ay caaxaan. loo dogu yàlla mën na la ciy dimbale boole ko di jaamu suñu borom tabaaraka wa laa bañ a taayal ci jaamu yàlla. ndax di tax ma ne la laajul yenn xeeti njàng yi nit kat mën ngaa daje nitug yàlla. mu def ci yow loo xam ne loo ñaan suñu borom suñu borom tabaaraka wa laa nangu ko mhm. te sab njàng du sori lool lool lool hmm. am na ñoo xam ne lépp loo mën di sàkku ci ñoom lenn li lañ lay bindal lenn képp hmm. lenn képp lañ lay bindal hmm. soxla boo mën a andi ci ñoom lenn képp lañu lay bindal te loolee boo ko gëmee boo demee yàlla mën na la caa defal tawféex am koo xamante ni bu juróomi nit ñëwoon ci ci moom kenn ku nekk nga wax ko yitte ju bokkul faw mu jox kii lii jox keelee jox keelee te la mu leen di jox lépp benn du ci bokk ak sa morom. moo tax sellal bi mooy li nga xam ne mooy li ci gën a am solo. loo xam ne bu ci nit ki góor góorgóorloo rek suñu borom subhaanahu wa mën na koo defal tawfiix bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. waaw ñu ngi woon ci ci ci wàllum ñaan ci wàllum ñaan la ñuy des ba tey. Mm-hmm. may fàttaliku rek ay kàddu yoo xam. ni xam naa xam naa nag lii après da nga may nga may fay temps bi parce que gis la <laughs> yoo may woowee fële te ma leen jël. <laughs> ñooñu di wootee bitim réew nañ nañ nañ nañ dugg directement ci ci ci ci rajo bi daal di mën a jokkoo ki nga xam ne moom mooy Serigne Mamadou Thiaré xam naa loolu moom bu paree gars gars yi ñoo koy jéem a cotiser rek xam naa mënuñ koo fay sax waaye <laughs> ñu jéem koo cotiser maîtrise rek Mbacke kay li doon wàllum ñaan maa ngi fàttali léegi wax joo xam ni euh, Serigne Abdou Karim Mbacke laa mës a dégg moo ko mm. mu ne nit ki ñëw ci yow di ñaanlu mm. xam na ni mm. li muy li mu bëgg yow yoroo ko mm-hmm. ndax ki ñëw naan la ñaanal ma mm-hmm. xam na ni li mu bëgg yow mm-hmm. yoroo ko keneen ki ko yor nag moo tax mu ne la ñaanal waaye bu fekkoon yow yaa ko yor mm-hmm. day ñëw ne la may ma mm-hmm. waaye nag fi toll nii toll nañ ci Sénégal foo xamante ni nit day ñëw ci yow di ñaanlu mm-hmm. yaakaar ni moom comme déplacé wu na ba ñëw ci yow wala dégg nañu ne yow mën nga lim lay ñaanloo daa war a nekk far force loolu am na wala waaw tey rek am naa ci kaa koo xam ne dama ko euh, kii daa am lu ma seex ak moom ba pare mu ne ma nag damaa bëgg nga ñaanal ma ci nangam ma ne ko mën naa nekk ci kàttanu yàlla mu ni ma diiran bi diir bi muy jàpp kañ lay ma ne ko nag wax dëgg yàlla foofu su ma fi duggee waxuma la man li ma lay liggéeyal yàqu. mais damay bañ mu yàq sama jëmm liggéey. bañ mu yàq sama jëmm liggéey. Mhm. ndax su ma la waxee ne la nangami fan. Mhm. wala nangami weer. day mel ni ci sama coobare lay doon daal ci coobare yàlla la. Mhm. te c'est man maa ngi sant yàlla su borom mi may dimbale mi may defal tawfiix su ma la joxee délai day mel ni délai boobu ci man lay doon te ci yàlla lay doon léegi nag man délai boobu ma la jox délai est-ce que mënta tax suñ borom tabaaraka wa taala yi nga xam ne doon na ma ci dimbali di mu ci defal tawfiix yëpp mu téye ko waxuma la sama diggante ak yow lii ma lay defal nii de mais yeneen yi ci des yëpp mm-hmm. ndax day mel ni euh, boo déggee ñu naan laa xawla wala quwwata illa billah bis mu mm-hmm. nekk nit ñi ñu ngi koy wax mm-hmm. waaye daa mel ni xamuñu lu muy tekk Euh, ba ma ko waxee loolu mën ne waa dëgg la kay maa ngi jégalu nanga ak nangam ak nangam foofu tamit sëriñ si war nañ cee yeewu lool. Mm-hmm. am na nag loo xamante ne ni marketing la ci communication. Mm-hmm. muy yéen ñiy liggéey ci wàllum réseaux sociaux xam ngeen ko. Mm-hmm. lu mel ni tey ngeen di dugal benn extrait journal. wala benn xew-xew jël miniature. defe ko noo xamante ne ni képp ku ko gis rek ku ko séen. dana ko mën a seetaan dana mën a attirer. marketing boobu dafa baax ci lu nekk euh, sëriñ si mën na koo jëfandikoo waaye dafa am nu ko dafa am nu mu koy jëfandikoowee mhm. waaye bu fekkee da ngaa boole ci sa marketing lépp lu ma lay defal wala lii ma lay defal nangami fan lay diire wala lii nangami waxtu wala loolu nekkatul marketing mais loolu dogu la mhm. nit mën naa fexe ba na muy liggéeye mhm. nit ñi wut si ko di jëflanteeg moom te na muy waxee doon noo xamante ne ni kenn du ko ci mën a jàmm ci digganteem ak boroomam tabaaraka wa taala ndax kat boo xamee ne yàlla mooy maye. te kat ñu ci bëri buñ la àppalee dele ba dele ba jotee boo demee ci ñoom dañ naan la man kat yoruma yàlla lay ñaan yàlla mooy nangu. léegi lu tee nga wax ko nit ki ci njëlbeen gi. lan moo tee woon nga xamal ko ne ko man kat damay sabablu comme yow ni nga ñëwee ci man di sabablu ci man man tam li ma yàlla dénk laay def sabablu ci yàlla. bu ñu yàlla dimbalee xayrun lépp lu yàlla dugal ñu xam ne noonu la ndax nit dana ñaandu bëgg dara dem ci nit di di ñaan lu ci moom nit ka defal ko loo xam ne lam bëggoon dëgg-dëgg suñ borom tabaaraka wa laa mën na ko ko bañ a defal mhm. waaye nag mën na ko ko lee leneen loo xam ne su ko joxoon loolee mhm. mën naa bañ a tal li mu doon ñaan mhm. loolu lépp day am ci fànn yëpp moo tax mu nekk loo xam ne nit ñi war nañ cee yeewu waaye si sëriñ si tam war nañ cee bàyyi xel te xam ne nag bi boo xëyee li suñ borom wax ne faw nga jot ko ci bis bi mën a doon loolu noo mën a def di nga ko jot. soo waxee dëgg di ko jot soo waxul dëgg di ko jot. boo xëyee suñ borom ne la tey jii da nga am nangami client dogal ko wala di nga tey nangam ak nangam. noo mën a def rek suñ boroom dana la ko jottali. moo tax amoon na benn xissa boo xam ne daan naa ko dégg ci mel ni mag. koo xam ne dafa amoon benni mbaam moo xam ne mbaam mi dafa mel ni daal mbaam moo xam ne bëriwul njëriñ lool lool lool lool lool. waaye ñu digal ko. maanaam mu dem jaayi ko mu dem jaayi ko waaye nag moom xam na ne mbaam mi dafa am sikk te képp ku ko jor yor ngir liggéey mën na laa gàllankoor waaye fu mu dem day wax dëgg mbaam mi kat dama koy jaay waaye dafa am nangam ak nangam ak nangam ak nangam waaye mujj na yàlla boole ko koo xam ne ba mu ko waxee sikk ba dana man xooluma ci loolu waaye dama koy jënd rek joxewaat ko te yàlla tax hmm. nga xam ne kon wax dëgg teewul am li suñu borom dogal nga wax mi nga a am li nga war a am. Mhm. loolu tam lu ci mat a bàyyi xel la. Mhm. suñu suñu suñu ci foofu rek balaa ñuy jàll ci leneen li dañuy fàttaliwaat mbokk yi ni eh, ñu ngi fii ci Assalaamy TV waaye it ñu ngi Assalaamy FM en direct kon képp koo xamante ni bëgg nga bokk ci émission bi mën nga woote ci 88 628 53 53 ñu leen di fàttaliwaat rek ne émission bi mooy seen émission réputation ngir képp koo xamante ni yaa ngi ci dëkk bi uh, wax wala ngay jëf lu luy jëriñ dëkk bi wala ngay wax wala ngay jëf luy jëriñ société bi ubbil nañ la suñuy buntu saa soo bëggee mën ngaa ñëw fii ñu waxtaanee ca ca la nga yëngu waaye mën ngaa ñëw fii ñu waxtaanee ca la nga xam ni ci loo loolu nga nekk sëriñ bi bu ñu jugee ci loolu rek ñu wax tuuti ci sarax hmm. ndax sarax dafa nekk loo xamante ni nit ñi dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko euh, dañ ko bàyyiwut dañ ko kii bu mu ëpp hmm. ndax dangay gis souvent ñu nekk ci réseaux sociaux yi TikTok hmm. wala wala wala wala wala YouTube wala fenn benn nit jekki-jekki dugal benn sarax jour tel nañ def sarax bi wala nañ def sarax bee te euh, sarax ma dégg ñu ne ni muy jariñee noonu la mën a loree mm. am si sax ñoo xam ne dañ leen di digal sarax duñ ko wóolu wala ñu digal leen euh, wirde duñ ko wóolu mm. ñu koy testé ci ay nit tax ñu jàllale ko ci réseau sociaux yi mm. ngir bëgg nit ñi essayé ko ba pare ñoom balaa ñu koy def est-ce que sarax mën naa lor comme ni muy jariñee waaw kay jërëjëf sarax de bu ci yàlla jiitoo mm-hmm. dalay fanqal waaye du la lor bu fekkee nag yàllaa ci jiitu yàllaa ci jiitu gi nag euh, mënees na koo déggee ci ay anam yu bari ndax nit mën naa xëy ne tey damay saraxe nangam def ko te yàlla tax def ko ngir yàlla nit mën a xëyaat tamit am jàngoro ju nekk ci moom wala moom ay gàllankoor ci dundam damay génnee sarax sàngam def ko te yàlla tax def na ko yàlla tax waaye def ciy ñaan suñu borom mu saafaraal ko jàngoroom xam nga ñaar yooyu am na différence waaye ñaar yooyu yëpp baax na Euh, sarax nekk na loo xam ne benn sarax bu nit ki saraxe suñ borom tabaaraka wa taala def ko ci fegal juróom-ñaar fukki déewin yu ñaaw benn sarax bu nit ki saraxe mm-hmm. suñ borom tabaaraka wa taala dala ko ciy fegal mu nekk loo xamante ni nii mm-hmm. wax nañ ne bu ëllëgee yowmal xiyaam mm-hmm. euh, ba suñ borom wàccee jant bi mu dem bay tollook boppi jaam ñi ñi nga xam ne dañ doon saraxe ci àdduna te doon ko def te yàlla tax sarax yooyu mooy nekk lu mel ni mbaax ci ñoom fegal leen tàngooru jant bi waaye nag defal te yàlla tax bu fekkee da ngaa gis am moodu caari mu ne sarax bii ku ko def da ngay bëri xaalis nga def ko nga def ko ngir xaalis boo ci amee xaalis baax na boo ci amul xaalis baax na waaye defee ko te yàlla tax mën nga ko nag defee anam koo xam ne yow sunu borom yow kat maa ngi fas yéene joxe lii ngir jëm yàlla maa ngi koy fas yéene joxe ngir sa jëmm ju tedd ji ak li nga ko bëgg. Mm-hmm. innama ma lil fuqaraa i nangam ak nangam ak nangam waaye maa ngi ñaan nga defal ma ci nangam ak nangam ak nangam nangam loolu lu mën a nekk la. Mm-hmm. waaye daal bëgguñu nit ki di fàtte yàlla ci lu nekk. Mm-hmm. waaw loolu tamit nekk na lu ma bàyyi xel la waaye sarax moom jàpp ma ne. mën naa gàllankoor doomi aadama bu fekkee dafa tënk rek ci li nga xamante ne noonu lañ ko xamee. waa fooguma lu mel noonu waaw. macha allah euh, kon dégg ngeen loolu ñu wax ci ci ci wàllum sarax waaye sëñ bi ku la xam xam la ci ay joxe ay secret <laughs> ñaan yu baax a baax a baax <laughs> te loolu moom xam naa ni doo ñëw ba dem te eh, xam naa man ma ko bu ma ko bañoon a def sax <laughs> nit ñi ñoo may woo téléphone wala nit ñi ñoo may envoyé message ne ma sëñ bi na joxe secret mm. te ku ne xam ni moment yi ñu nekk nii moment examen la mooy ñi nga xam ni dañoo war a def BFEM di xale yi war a def BFEM mm. e mm. d'ailleurs commencé nañ sax tey ban secret nga leen jox boo xamante ni eh, durant ñuy def examen yi dañ koy mën di utiliser war a xaar résultat yi dañ koy mën a utiliser ngir mu jariñ leen. Mhm. waaw secret yooyu de la ca jiitu rek mooy nangoo jàng. Mhm. nangoo jàng. waaw loolu mooy eh, loolu moom mooy secret bi ci jiitu ndax am na koo xam ne fan yee daf maa woo ne ma man di sama doom daal. xel mi nekkatul ci jàng dara dara dara dafay wax wax ba sonn ma bàyyi ko muy wax di wax di wax temps bu yàgg yàgg. bi mu paree ma ne ko ndax dañoo yor téléphone. Mhm. mu ne ma waaw yor nañ téléphone. ma ko téléphone mënta ànd ak jàng. Mhm. te loolu sëñ bi ñu bari bàyyi wuñ ko xel. Mhm. bëri na ay élèves yoo xam ne suñu jàng dañuy yor ay téléphone même sa téléphone bu fekkee da nga koy bàyyi sa kër. Mhm. téléphone kii jàng waru koo yore. Euh, bi may nekk ca daara ja amoon na ay jamono boobu sax xaw naa sori tuuti ndax boo wàccee bay toppaat ba toll foo xam ne xëy na léegi tey nga nga nga tareeg yu mel noonu. da ngay mën a yor ay appareil yooyu. yaa dogal mas naa faa yor benn téléphone boo xam ne sax taxut mu naan téléphone ndax ci jamono yooyu téléphone téléphone yooyu gunóor lañ ko doon wooyu gunóor <laughs> mooy motolaa yu ndaw a ndaw yooyu waaw yu ñuul yu ndaw ya mm-hmm. mas naa ko yor jamono yoo xam ne gàllankooroon na ma lu baree baree bay ci sama njàng mm-hmm. ndax suñu borom dafa dogaloon xëy na euh, képp kuy jàng moom léeg nga mokkal léeg ñàkk a mm-hmm. waaye ci jamono yooyu moom la daan ñàkk a mokkal bëri wut waaye jamono yi ma yoree téléphone bi amul benn waxtu woo xamante nii danaa ko mokkal dañoo mas toog nii di añ euh, di añ nii ci daara ja mhm. ñu toog di añ ba yàgg mhm. benn waay ci daara ji ci dongo yi sama mhm. morom yi ne ma sa téléphone bii nga yore li fekk tàqalikoo woo ak moom dootoo mokkal ma xam ne li ma wax dëgg bu wër a la ma wax ndax man daanaka su may jàng sax sama xel mi ngi ci téléphone bi su ma wàccee sama xel mi ngi ci téléphone bi te jamono yooyu téléphone boobu gunóor la woon amoon sa internet <laughs> léegi nag nga yor téléphone boo xam ne day am whatsapp di am internet di am TikTok. gis nga élèves yi nga xamante ne dañoo bëgg seenu njàng dëgg dëgg dëgg sax. booy wax ak ñoom des fois dañ naan la amuñu TikTok. WhatsApp sax lu mënta ñàkk rek lañ ciy kii. moo tax loolu tam wuy jur yi nañ ci bàyyi xel waaye nag bu loolu lépp jàllee nag am na ay ñaan yoo xam ne ngir loolu la. lu mel ni huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. élèves yi noté leen noté leen bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéenay def examen. sant leen bu baax a baax a baax li sëriñ bi di wax mm. bi nasrihi wa bil mu'minin mm-hmm. aaya boobu boo ko bindee juróom-ñaari yoon mm-hmm. nga war a dem examen sangu ci mm-hmm. naan ci boo demee yàlla mën na laa dimbali defal la tawfiix euh, nga am li nga bëgg ci kattanam ak mbaaxam bari na yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen bëggoon naa tam soo ma ko mayee am na ay salaatu ala nabi yoo xamante yu takku la yoo xam ne euh, su ma juumul Euh, boo bëriwut fu ñu koy gis. Mm-hmm. du ma ne mosuñu koo gis fenn. Mm-hmm. waaye nag euh, bu dee mës ngeen koo gis tamit mm-hmm. bariwut yor naa ci nag lu ma téeméeri salaatu ala bi yoo xam ne. yépp rek salaatul euh, yuy bijji wërsëg la yoo xamante ni day tax am wërsëg. Ah, yoo xamante ne nii allah ah. taala lu mel ni. ñu jël li tàmbalee premier rek ndax mat nañ téeméer mhm. allahuma salli ala sayidina muhammadin mhm. salaatan tarzuquni biha risqan xalaalan tayiban mubarakan fiihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim mhm. salaatu la goo xamante ni képp ku koy def suñ borom tabaraka wa taala daañu la defal wërsëg bu dagan amul nombre amul nombre buñ ko war a def wala loo ci def rek baax na waa xam nga julli ci yonante bi moom euh, lu am solo la loo xam ne boo koy def lu mu gën a bëri day gën a baax mm-hmm. waaye nag yéene ji mooy li nga xam ne mooy li ci gën a am solo mm-hmm. boo ko defee benn yoon mm-hmm. baax na boo ko defee ñetti yoon baax na boo ko defee fukki yoon baax na boo ko mënee saxal di ko def lu bëri baax na boo ko mënee wutal ab lim baax na allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan bi biha maalan wafiiran wa xayran kasiiran wa ala alihi wa sahbihi wa sallam maalan de xanaa mooy xaalis moom mooy alal waa maalan waa <laughs> ah. allahuma salli ala sayyidina muhammadin salaatan tarzuquni biha rizqan laa yanqatihu abadan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahuma salli ala sayyidina muhammadin salaatan taftaxu lii biha abwaabal ghina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ay salaatu la yoo xam ne gis nga nii mat nañ téeméer salaat yoo xamante ni boo ko mësee gis fenn wala nga mës koo dégg itam bëriwut te julli ci yonente bi day loo xamante ni boo ko defee dafay dem directement ci yonente bi alayhi salaam mhm. nga xam ne nit ki bu amul njàpp sax mën na koo def jigéen bu setul sax may nañ ko mu julli ci yonente bi alayhi salaatu salaam mhm. te boo ko defee suñu borom daf koy nangu directement mhm. léegi nag suñu borom tabaaraka wa taala doo julli ci yonente bi alayhi salaatu salaam ba pare ñaanaale ko dara mu jël julli googu yóbbu ko ci yonente bi la nga ca ñaanoon mu téye ko bañ la koo may suñ borom soxoru mm. ku baax la mm. moo tax salaatu yi nekk yoo xamante ne képp ku ciy góorgóorlu te di ko def mm-hmm. faaw suñ borom dana la defal ak fatxu dana la defal wërsëgu yaat lool waaye dana la defal ak ubbeeku mm-hmm. dinaa la ko baaxee ndax maa ngi xalaat sax dem ba def ko mu nekk téere boo xamante ne nii téere bu spécial lay doon nga xam dañ koy mool di ko di ko di ko def ndax tamit sëñ bi mm-hmm. dama koy faral di wax euh, gis nga Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu mag ña ko toppoon la sëriñ bi defaloon mag ñooñu lañu amoon loolu am ko ci jamono ji ñu toll weesuwul xam nga li ko waral suñ borom tabaaraka wa mi nga xam ne mooy may lépp suñ borom moomu mi ngi fi moo fi nekk ba tey te la mu yoroon du jeex te xasida yi sëñ Tuubaa yi benn xasida bu ci nekk taxaw na taxawaayu jëmmi siriñ bi boo ci jàppee di di ci góorgóorlu di ci sellal lépp lu sëriñ bi ma maanaam fa sëriñ bi daan àggale mag ña sëriñ bi ñu waxal boppam ni xasida yi dañ fay àggale taalibe yi hmm. kon moo tax ma wax ne euh, li ma jubla wax rek mooy salaatu ala nabi boo mas a gis hmm. ci mbindeef la jóge hmm. jaam nag war taxe boppam lan moo ñu war a créer ay salaat lu lan moo tee boo duñu war a mën a créer ay salaatu na nabi créer ay ñaan yoo xamante ne nii sëñ bi ñi danañ ci mën a jëriñu ndax kat suñu borom mooy ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy boroom lépp mu may maye dangay ngay euh, da sabablu waaye daal téeméeri salaatu ala nabi yi nga xamante ni yu ñu fent la yaakaar naa ne yi ma ci jot a wax jom njortu ma ne nit mas na koo dégg fenn moo tax ma ne la nag dama koo fas yéene mool mu nekk téere boo xamante nii salaatu ala nabi yaa ko fent waaw loolu ci ci gàttal loolu laa loolu laal la wax moo tax ma ne la yow doo ko mës a dégg mhm. te kiy déglu tam du ko mës a dégg fenn te lu ëpp téeméer la mhm. te naa koo gën a bëreel ba nga xamante ni yii moom dañoo spécialisé wu ci wàllu wërsëg su ma paree mën naa koo defaat yoo xamante ni yeneen ci wàllum kaaraange ci wàllu ci ci lépp rek bi seexati salaatu ala nabi lay doon loo tam jàpp naa ne lu am solo lay doon incha allah macha allah loolu de lu am solo lool lool lool lay doon rawatina ñu ci mel ni sama jaar gi xam naa ni eh, bis boo taxawee pour mollu ko rek boo ñu ko waxee ñun lépp loo xamante ni mën nañ ci ngir am ci mën nañ ko def ngir am ci mm-hmm. incha allah rabbi danañ ko def eh, yeneen it yoo xam ni mën nga ñu koo baaxee it ñun moom eh, ñoo ngi nii ñoo ngi toog <laughs> ñoo koy xaar bu baax a baax a baax waaye bu loolu jàllee sëñ bi it xam nañ ni kuy kuy kuy suivre actualité ga mm-hmm. loolu moom loolu moom xam nañ ko ci yow mm-hmm. dëkk bi fii mu toll nii Sénégal fii mu toll nii ban jàngat la ci sëriñ bi am pour ñu bañ a euh, dut baaraam fenn rek nga xool situation dëkk bi rek nga wax fii foo ko salpiré. laaj bi daa xarobu de Sénégal fi mu nii. Uh-huh. daanaka da ngaa lépp yéen nga ko dama <laughs> xam sama jaar. xam nañ ci da ngay suivre actualité moo tax duñ bëgg <laughs> duñ bëgg dut baaraam fenn foo ko salpiré rek mën nga faa mën ñëwee. <laughs> laaj bi daa daa xarobu xorobu lool. situation politique réew mi réew mi gis nañ ko Bassirou Diomaye Faye bërki démb génn na fi def discours. Mm-hmm. wax ji wax yaakaar naa gis nga ko dégg nga déglu nga ko. Mm-hmm. ñeneen tamit génnaat xalaat. di wax ci discours bi. lépp lépp boo ko dajalee yow am nga ci xalaat ban xalaat nga ci am ak ban jàngat nga ci am. <laughs> waaw muy lu am solo lool loo xam ne daanaka comme ni ko gisee rek ak ni ko jàngatee ak ni nga koy xalaatee noonu la ko ñu bari di kiwee. Mm-hmm. waaye xalaat ku li xaal euh, muy sëñ Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. ak ñi mu àndal. Mm-hmm. ñoom ñépp jàpp naa ne fañ nekk yàlla moo leen fa teg. Euh, bu ñu nangoo ne yàlla moo leen fa teg rek day am solo ci yu baree baree baree baree bari ñu di ci bañ a teel a teel a teel a teel teel a kii parce que semaine bii passé boo xoolee ñu naan cent jours cent var cent jours cent nangam cent jours mais am na mbokk moo dégg mu ne mu wax démb lu am solo cent jours cent transhumance Ah. <laughs> loolu ñuy loolu gars yi duñ ko wax xam nga. Mm-hmm. moo tax te liñ def ci lu baax nag bu dee def nañ lu bon man xaw ma ko bu dee def nañ aw safaan xaw ma ko. Mm-hmm. waaye li ñu def ci lu baax ak ñu fi jot a am moo ëpp fuuf ci li ñu war a mën a nettali ci ñoom. Mm-hmm. te wax moom mënta ñàkk. waaye nag. yal na leen yàlla dimbale mhm. ba ñu xam li tax ñu fal leen mhm. te nekk ca bañ ko wàcc ba faw mhm. ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ndax nit ñi dañoo am ci ñoom yaakaar bu rëy rëy rëy yaakaar jooju nag yàlla na ko yàlla yàlla na leen yàlla jàppale bu baax a baax ba yaakaar bañ a tas te tamit ndaw ñi comprendre leen bu baax te xam ne juróomi at lañ leen fal faluñu leen ngir juróomi weer faruñu leen ngir juróomi semaine faluñu leen ngir juróomi bés wala juróomi waxtu. Mhm. juróomi at. Mhm. kooku bu fekkee yàlla dogal na amagu ci ñeenti weer yu mat nga tàmbalee la nga ñu diggoon gisuñu ko nangam ak nangam bu yombi woon noonu kay xanaa ña fa jógee mhm. luñ tële tële tële tële tële mën nañoo lekk alal ba doyal te du tee ñu liggéey Sénégal ba mu bu fekkee ni ñu ko bëgg dëgg dëgg dëgg ñii mënee nañ ko nii. kon ña jiitu woon te jóge fi. lu ñu tële tële tële mën nañoo lekk ba doyal ba duy seeni i poos dencal seen i njaboot te du tee jekk. Hmm. moo tax faw ñu xaw a taaxirlu te muñ tuuti incha allah. Hmm. te ñaanal leen tamit yàlla defal leen tawféer mënuñoo def lépp. Hmm. waaye nag yàlla mën na leen a dimbale. ba fu ñu leen tuddee ñu xam ne def nañu nangam ak nangam ak nangam ak nangam. macha allah macha allah léegi nag sëñ bi dañuy daal dem ci daj dëpp gi. muy màggal Touba gi. Mm-hmm. ndax ku ne xam na ni Touba moom fi mu toll nii tembe. Mm-hmm. képp ku fi dëkk sa xel dalatul. Mm-hmm. képp ku fi dëkk yaa ngi xaar xéewal gu baree baree baree bari. sama bopp laay tàmbalee. Touba ku fi dëkk. boo sañoon yaay yónnee paas nit ki mu ñëw. yaa koy bernde. yaa koy jox lu mu yóbbaale. yaa koy joxaat paas mu ñibbi. te loolu nag poos a koy def. léegi sëñ bi ban ñaan nga ñu jox boo xam ni ñaanu màggal la carrément moom lañ bëgg. jërëjëf sëriñ bi laaj nga laaj bu am solo. comme danga dugg ci màggal. Mhm. màggal di màggalu sëriñ bi. dinaa la ci jox loo xam ne sëriñ bi moo ko wax. Mhm. Euh, boo demee ci téeram bu mu bind. tuddee ko Fathul Wahab al Karim. Mhm. fii xuruufi bismillahi rahmaani rahim. bi noonu la tudd. lépp ci njëriñul basmala la. nee na képp koo xam ne yaa ngi def. saa yu xëyee. jàng mille basmala nga wirdu ko basmala junnee yoon soxla boo am sunu borom tabaaraka wa laa fajal la ko soxla àdduna ak àllaaxira boo demee ci téere boobu ñu ngi koy wecc fii maktab yi yëpp yu ci bari boo demee da ko gis mu ngi tudd fathul wahab al karim fii xuruufi bismillahi rahmaani rahim suñ baa ngi koy wax ci biir ne basmala 787 la wax sax maa ngi jéglu 787. wax na ci 1000 la waaye def ne ku ko bind takk ko 1000 basmala. nee na ku ko bind takk ko suñ borom dana ko defal wërsëg bu yaatu lool defal ko bayre defal ko protection musal ko ci ay noonam. waaye wax na itam ne képp koo xam ne yaa ngi def saa yu xëyee wirdu ko lu toll ci 787. soxla boo am. soxla àdduna ak àllaaxira sunu borom tabaaraka wa taala dana la ko fajal. xam nga nag boo waxee màggal comme ni nga ko waxee soxla yi ñooy bëri. jëmmi soxla yi ñooy bëri lépp loo xamante ne mi ngi nekk ci xelam nit ki mu di ko yittewoo rek loola soxla la moo xam muy xaalis moo xam lu mu mënti doon kon loolu waxuma la màggal gi waaye boo ko jaam bi saxalee ci dundam euh, mën naa nekk koo xam ne fu mu toll day am ndimbalu suñu borom tabaaraka wa taala te waxi sëñ tubaa la te sëñ tubaa du waxantu sëñ bi kon nag nañ ko gën a fonk te gën koo sellal bu baax a baax a baax incha allah macha allah kon mbokk yi euh, dégg ngeen waxtaan wi jàpp nañ ñi am na njëriñ bu baax a baax a baax te loolu rek lañ ci sàkk woon loolu rek lañ ci jublu woon kon ñuy fàttaliwaat rek ne yéen a ngi nekkoon ci seen émission réputation ñu am dalaloon ki nga xam ne moom mooy Serigne Modou Thiaré di fàttaliwaat yéen ñi nga xam ne yéen a ñu bëgg euh, ànd ak ñun jotaay bi mën ngeen di fàttaliwaat rek képp koo xam ne yaa ngi dëkk Touba wala képp koo xam ne yaa ngi dëkk biir Sénégal di def lu amal njariñ Touba wala nga def lu amal njariñ Sénégal ubbil nañ la suñuy buntu ñëwal fii nga toog ñu waxtaanee ko képp koo xam ne màggal gi bëgg ngaa fesal domaine ba nga yëngu xam leen ni fii moom mooy fi nga xam ni moom la kilifa yëpp di seetaan muy Assalaamy TV fii moom la kilifa yëpp di seetaan muy yi di déglu moom la ñuy a def publicité wala bis boo a nit ñëpp yëg ko ñëwal fii Assalaamy te xam ni fii la kilifa yi di seetaan fii la waa Touba yëpp di seetaan fii la waa Touba yëpp di déglu sëriñ bi bu ñu ci loolu ngir rek tàggatoo ndax daanaka li ñu cërale woon ci waxtu day daal di bëgg mat ban conseil ngay joxaat encore une fois jeune Touba yi nga xam ni parce que man loolu dafa nekk lu ma ñor dafa nekk lu ma ñor loolu ndax dama ci am ay kaa amati ci ay cas damay ànd ak nit tey suba mu xëy ni day ñaan damay dugg ci oto nit tey mu yóbbu ma suba mu xëy ni day ñaan suba nga dugg ci saretu nit ginnaaw suba mu ne day ñaan loolu ñor ma lool ndax nit ñi ci nax moo tax mu gën maa ñor nit ñi ciy nax ban conseil nga leen di jox ci ñu gën a dem sàkku juwaat xam-xam bu dee dañoo bëgg yëngu ci domaine boobu. waaw foofu ci wax mooy euh, góorgóorlu mm-hmm. di sellal sa diggante ak sa boroom mm-hmm. di sellal tamit sa diggante ak nit ñi. Mm-hmm. ndax ni nga ko waxee moom noonu la ko ñëpp xamee. te daa nekk loo xam ne. boo xoolee daanaka du mu ciy bëgg a wax lu bëri ndax misaal te am na noo ciy waxee man nañ jàpp ne kiy déglu kiy déglu te xalaatam gàtt mën naa jàpp ne kii dafa dafa soxalee ñi ci nekk. mais dafa jëriñoo ko parce que da loo xam ne danger public la danger nag dañ koy signaler ñëpp xam ko. Mm-hmm. te loolu ku ne xam na ni fi mu toll nii phénomène la boo xam ni Touba. Mm-hmm. parce que man dama jee gis ay nit gisati ci ay nit ñoo xam ne dañ leen di nax ci loolu. Mm-hmm. loolu faaw ñu wax ci. waaw moom am na solo daal am na solo li ma waxoon léegi ci ginnaaw rek maanaam nit ñi daal bu dee man mboog ni may doxee bu yàlla dogalee ci li may njort ci sama xel ndax nit ki nag nam mel dëgg dëgg dëgg yàlla rek mooy ki ko xam boo gisee ma naan la nañ góor góorlu te sellal mooy bu fekkee yaa ngi góorlu tey sellal sa digganteeg sa borom tey sellal sa digganteek nit ñi Euh, yàlla mën nga di dajeek i taw fii xam ci lu baree baree baree bare mhm. ci kaw nga am as tuut loo xam ne sax am nga ko mhm. ab yóbbal loo xam ne ci mën a sukkandiku ndax suñ borom dafa bëgg na jàmb bi sababloo mhm. boo sababloo rek ba yàlla xam ne kii mi ngi sabablu xam na ne li ci des moom ci ay loxoom la waaye du ci yaw moo tax euh, luñ ci gën a mën a góorlu ci sellal bi rek dañ ciy gën a dajeek ndimbalu suñu borom ak ak taw tawféexam mhm. nit ñi tamit ñu xam ràññee bu baax a baax a baax a baax a baax mhm. ndax des fois di nga gis nit mhm. mën na la ci lii lay yëngu waaye dangay xam ne xel ma ci boppam melut na war a ma dëgg maanaam ñu baal ma dangay xam ne kii daal léppam ñëwul waaw kay am na lu mu <laughs> léegi nag kooku boo demee ci moom Eh, day mel ni yow mii dem xëy na kooku maanaam yow tanewu la yow tanewoo ko <laughs> <laughs> macha allah kon eh, loolu moo nekkoon seen émission réputation ñu àndoon ceeg nga baal ma maa ngi jégalu sax uh-huh. ci biir loolu tam da nga ciy gis ñoo xam ne mm-hmm. parce que mën ngaa gis koo xamante ne nii wóor na leen kii kat xam-xam dëgg dëgg dëgg ñëwul ci moom mm-hmm. nekkul ci moom mm-hmm. waaye day am ñenn ñoo xamante ne maanaam mën nañ koo favoriser wala boog poosam diis na fu mu bëgg dugg dugg kilifa gu mu ah, bëgg a gis gis ko foofu it buntu bu mu fëgg ñu ubbil ko ko mm-hmm. bu yàggee nit ñi dañ naan kii de gis naa ko ci sëñ diw gis naa ko kër sëñ diw gis naa ko mm-hmm. te fekk loola maanaam waaw kay marketing la bu muy def mm-hmm. waaye yow mi nga xam ne nag euh, xam xam nga xel ne kii la mu nekk nangam ak nangam ak nangam maanaam yooyu itam lu ñu war di wattandiku la bu baax a baax a baax a baax a euh, gis nañ ko fi gis naa fi koo xam ne ndeysaan macha allah euh, maanaam daal léegi jamono ji daa toll foo xam ne daanaka bu sa poos xawee dis tuuti rek noo mën a mel bunt boo fëgg dañ lay ubbil. Mhm. boo bëggee def promotion ci sa bopp kër kilifa boo dem mën nga faa fekk ñoo xam ne danañ la xajal. Mhm. nga am ak sëriñ ba jotaay. mën ngaa yëkkati kàddu sax ñu dégg. Mhm. te ñooñu bu ñuy dem dañuy ànd ak seen personnel yoo xam ne ñoo leen di filmer ñoo leen léegi nag loolu la ñu jël di ko tasaare ci réseaux sociaux yi ñoom du ñu wax xam-xam. Mhm. mais image ci image yi lañuy la kii. Mhm. mais nit ñi tam ñoo war a xam ne. Euh, waruñu sukkandiku rek ci ay image ndax ki yàlla dogal mu am lu mu xam tuut. yaakaar naa bu waxee tuuti rek da nga xam ne. kii kat. Euh, am na lu ko yàlla dénk loo xamante ne nii feeñ na ci jëmmam wala feeñ na ci moom wala nangam ak nangam mooy li moo waxoon léegi ne wax feeñ. loolu tam lu ci mat la kon ñu ngi jéggalu bu baax a baax a baax macha allah sëriñ bi suñu déggee li nga bëgg a wax dégg li nga bëgg a tënk mooy maanaam nit ñi nga xamante ni dañuy wut <laughs> benn groupe boo xamante ni groupe d'influenceur la mm-hmm. ñooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen di euh, topp di leen filmer mm-hmm. wala ñuy dem feneen sax foo xam ni nekkuñu fa di leen fa waxal loo xamante ni peut-être ñoom defuñu ko mm-hmm. ngir mën a gagner confiance yeneen nit ñi mooy li may faral di wax rek ne euh, léegi influenceur bi gën a ci àdduna mooy téléphone portable parce yi nga xam ni dañuy nekk nekk des fois seen kër yor seen téléphone portable seen waajur yi dañuy jékki-jékki gis ci ñoom jikko boo xam ne nekkul woon ci ñoom mm-hmm. ñoom li leen di jaaxal mooy sama doom génnul sama doom demul fenn kon a mm-hmm. mm-hmm. loolu tamit nekk loo xamante nii lu jara jara moytu la doo yor sa téléphone portable rek di défilé di dem maara boo romb ñu ne la mën na wala maara boo romb ci ci bâche bu yaatu wala ci benn kilifa ñu koy waxal lu baax rek nga ni mën na kon loolu jar a a ñun ñooy dem di ñaanlu ji ñu bàyyi ci xel kon rek loolu moo nekkoon seen émission réputation di am fii ci Assalaamy TV waaye di jàll ci rajo bi di Assalaamy FM balaa ñuy daal di def tàggatoo bi dañuy bàyyi sëriñ bi mu daal di nuy ñi nga xam ne ñoo ko doon suivre ak sax ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon woo te nekk bitim réew ndax ñi ngi gis sànq wala téléphone bi di sonné mu santaale ñi nga xam ne ñoom la bëgg a sant alhamdulilah jërëjëf ñi ngi rafetlu taxawaay bi mhm. di rafetlu invitation bi ndax dangaa nekk koo na bu ñu kiyee yàggul lool lool lool waaye nag yàlla dogal na ne sunu waay nga ci yu bare bare bare bari macha allahu taala yoo xamante ne yaa ngi ko doon sonni ngir ñun te di ko sonn ba léegi mm-hmm. eh, muy loo xamante ni lu rafet la loo ne ñu ngi koy sàmm ba léegi di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo doon déglu ñëpp mm-hmm. tey wax ne bu fekkee yàlla dogal na ñu wax fi loo xam ne mm-hmm. day nuru njuumte wala mu nekk ko wala nit gis ci boppam ñu ngi la koy jéggalu bu baax tey wax ne yàqkat taxuñoo jóg waaye defar ak yéete mm-hmm. ak leeral mooy li nga xam ne moo sabab jotaay bi mm-hmm. euh, ñi nekk ci biir réew mi ñu doon seetaan télévision bi ak fu ñu ko mënti seetaanee rek mm-hmm. ñu ngi sant ñëpp tey ñaan yàlla mu defal nu li nu gënal te mu dëppook mu defal nu lu gën ci ñun te mu dëppook li nu gënal asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah kon mbokk yi comme niñ leen ko waxee sànq loolu moo nekkoon seen émission réputation waaye di fàttaliwaat sponsor yi ñu ngi jëm ci màggalu Touba di fàttaliwaat bu baax a baax a baax sponsor yi képp koo xam ne li ngay jaay bëgg nga nit ñi di ko gis wala képp koo xam ne domaine bi ngay yëngu bëgg nga nit ñi di ko bàyyi xel ñëwal fii ci Assalaamy TV ci émission yi nga xam ni moom moo fiy daw du émission bi kese moo fi daw am na yeneen ak yeneen ak yeneen i émission yi fiy daw kon képp koo xam ni rek bëgg nga uh, say mbir daal di gën a feeñ ñëpp daal di koy gis ñëwal fii ci Assalaamy TV wala nga jaar Assalaamy FM ci rajo bi ñu leen di fàttale ñi mën ngeen ñu rejoindre ci 88 628 53 53 88 628 53 53 kon restez scotché sur Assalaamy TV en attendant la suite de nos programmes jërëjëf yaay sa duug sunu maam jaaratullaay sunu maam